mbokku internautes yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokk yi di amaat mbégte mu rëy nag ci bis bu mag mi nga xamante ni moom la ñu jóge muy bésu le 19 juin bés la boo xamante ni souvenir indélébile la dootuñu ko fàtte des na ci xelu supporters yi des na ci xelu amateurs yi des na ci xelu axlu làmb ndax bés la woon boo xamante ni bés bu mag la woon ci wàllu làmb ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Franc ak Sokh nekkoon bés boo xamante ni bés bu amoon solo la bés boo xamante ni am na fu mu fekkoon làmb waaye am na lu mu yokk ci làmb ndax changé na beneen xar kanam ci làmb vingt mille place ku mel ni franc ak soq duy ko ba mu fees loolu loolu loolu loolu leneen la. loolu leneen loolu lépp dinañ ci waxtaan ak soq ah ma bàyyi Lamine mu nuyoo ak ñi ñuy seetaan ñu dem ñu dem directement ci question yi ndax tey ki ñu seet si ah. ah ñu bàyyi kon ñu bàyyi kon soq mu nuyoo. nuyu ak ñi nga xamante ni ñoom moom moom ñoo ñuy seetaan ñu dem ci question yi. Mhm. waaw alhamdulilahi rabil alamin di wax onze bi laa bisimilah ina waali yàlla jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa ngi santaat sëriñ Touba bu wér a wér a wér a wér di sant suma yaay di ko ñaanalaat gudd fan ak wér gu yaram di santaat suma yaay bu baax di ko ñaanalaat gudd fan ak wérgu yaram di sant suma sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq di sant suma baay Mouride mbay bu baax a baax a baax a baax di sant soxna May mu sëñ Fallou bàjjan maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla guddal fanam yàggal ko fi lool di sant képp kuy taalibi Serigne Touba di sant waa Touba gépp gépp gépp maa leen di sant bu baax di sant waa Tiwaawan bu baax di sant képp kuy taalibe seex du ma fàtte nag suma mbokku taalibe ñaseen yi maa ngi sant ñëpp waa Kaolack ñëpp ñëpp ñëpp waa Jakarta maa leen di sant bu baax di nuyu sama grand Thierno borom Kaolack comprendre nga maa ngi koy sant gis naa taxawaayam bu baax képp kuy dawal Jakarta dëkk Kaolack rek man Sokh maa ngi lay sant gis naa seen teewaay ci bis bi gis naa seen taxawaay beneen bi tamit di sant waa jàmm gën waa jàmm gën gis naa combat bi mobilisation bi ñu def ñëw ci combat bi taxawuma bu baax di sant nag waa Pikine waa Pikine moom maa leen di sant bu baax a a baax a baax a baax ndax keroog ku ñëw arène nationale xam ne waa Pikine am na fu ñu teg sook am na taxaw bu baax buñ ma taxaw waa ginnaaw tamit su koñ fi ma juddoo yaroo fa màggee keroog koñ bi kenn lekkul kenn naanul comprendre nga maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu suma ma dëkkandoo yaay yëpp suma waa koñ sonal naa leen trop ci bis bi parce que kenn nelawatul woon maa ngi leen di profité di leen jégalu ñoom ñëpp suma ma yi nekk si koñ bi su waa su yaay waa jàkka jeeg ñëpp beneen affaire bi may masaw ki nga xam ne moo ñàkk bakkanam ci bis bi ndax yaakaar naa fi ma seen lañ sànni mu dal ko par la suite daf fay mujj a jaaree ñàkk bakkanam di ko jaale ay mbokkam bu baax ndax suñu supporter la mm-hmm. man maa taxoon mu ñëw stade mm-hmm. comprendre nga ndax Pikine la dëkk suma xarit la xamante nañ bu baax jouru combat bi sax ñëw na sama kër doog a demaat xam nga doog a ànd ak ay copain am dem stade ndogal boobu dal ko ci biir stade bi kon yaakaar naa ne tey ñun mënuñoo am naqar ba ëpp ko ay mbokkam te ñun bokk nañ ci ay mbokkam comprendre nga rob bi nag samedi la almeeru Ser Lazare foofu la rob bi maa ngi ciy woo ñëpp képp kuy Pikinois ngeen ñëw xam nga ñu ñaanal suñu frère boobu suñu borom xaaree ko aljana Eumeu Sène woo na ma Boy Niang woo na ma Ama Baldé woo na ma pour samedi ñu def benn mobilisation dem xam nga jébbal ko suñu borom di ko ñaanal yàlla jéggal ko ay bàkkaaram ci barki yonent bi waaw léegi euh, ci Pikine boobu nga ñëw léegi ci deux cent pour cent boobu tey naka la Sokk def ba mobiliser waa kër Ama Baldé mobiliser waa kër Eumeu seen mobiliser waa kër Boy Niang ba waa kër Bathie Seras xam sa cosaan Pikine gépp génn ñëw dooleel seen doom ci bis boobu <coughs> Baye Balla moo tax ma ne man bis bi ku xam dëgg xam ne ñàkkuma ci ndam man dama am ndam avant mooy bëre parce que li ñëpp ne woon mënut a nekk góorgóorlu naa ba loolu nekk muy tey coow li bari woon Pikine yëpp ku nekk naan lii fële lii fële man soq fexe naa ba Boy Niang naan presse yaa jox Ama Baldé mu jekkali ko fexe naa ba Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang bekk bokk benn bool di lekk ñuy lekk di kaf di ree fexe naa ba ñu bokk benn néeg tëddandoo fa yendu fa fexe naa ba ñu dalante contact ñun suñu biir te du samay pexe suñuy papa seeni pexe la ku ci mel ni suñu papa Dégol ku ci mel ni Zil ku ci mel ni suñu papa Burxaan ku ci mel ni Grand Lanjang ku ci mel ni Pape Diop Boston ku ci mel ni baaba Diallo ku ci mel ni Mbay Diallo ku ci mel ni euh, per Burxaan ak ku ci mel ni Père Pala comprendre nga ñun dañoo gis suñu papa yi yëpp génn Pikine gépp génn ñëw taxaw jàpp ci loolu ba loolu am mais yàlla dafa dogal mu tombeek ci journée soq comprendre ñoom ñëpp ñu ñëw wàccee seen bopp def seen bopp ay booy di ma taxawu guddi di ma taxawu bëccëg ba ci Pape Sarr ak Mortala Pikine gépp ñooñu ñooy pikin buñ naxante tey ñooñu ñoom ñooy pikin tey ñooñu buñ dajaloowee Pikine dañuy dajaloo te amaana dajaloo boobu noonu moo waral keroog ni stade bi mel duñ jàmbarte soq du dara bëréew ma fi combat bu ordinair bu war a tëj arène nationale mais xëy na dañoo gis Pikine ni ñu àndooyee booloo doon benn ñu tëj arène nationale Pikine li ñuy wax rek xajul fenn barki maam Serafal Pikine bu booloo rek daje buñ gungee xale bu ndaw sax nit ñi dañ koy yëg keroog loolu sentir naa ko ci sama bis mhm. maa ngi remercier waat deux cent pour cent bi ñëpp suñu papa yëpp maa ngi leen di remercier ku ci raw suñu per de Gaulle bi amul lu mu si dajul maa ngi gis sax ñu koy dugal ay image du jour ak affaire yooyu noonu te ndaysaan xëy na xër bi mu xër ci sook xam nga ak ni mu meloon ci bis bi ak li mu daj ci bis bi père de amul autorité bu mu poñewul pour mu jàppale ma ci combat bi mortala du ñu ngaaka barki Seydina Mohamed dama dem ba dama koy yërëm amul fu mu duggul amul ku mu woowul ponkol bu mu woow day taxaw sax xuloog yow pour nga jàppale ma tey bis bi bu melee nii barki alxuraan mortala du ñu ngaaka am na ci part de te combat bii nii autorité Pikine yëpp a ma jàppale ku ci mel ni Ablaye Timbo Isaaxa Diop jara comprendre nga ak ak ak ak euh, suma grand suma grand suma xarit ku sonn ci man muy Ibu borom Kajoor production. jàpp na ci bu baax Ibrahima Diop grand Ibrahima Diop nit ku ñàkk ki ñaan la yëkkati na xaalis may ma ñëw ci bis bi taxawuma ci sama cumbukaay la taxaw. Mhm. bañ ma daanee gis naa ni mu def ndax gis naa bi ko caméra di jël ak yooyu yëpp loolu nag yëg-yëg la ci biir xol. Mhm. comme li may wax wax rek. grand Thierno Ndomba dañoo dem këram fekk ñu ko fa grand Ousin lañ fa fekk mu yëkkati xaalis bari ñu jënd jàpp ci bologu billet yi yëkkati xaalis bëri jox ñu rama magi su ma jigéen jàpp na ci bu baax ay ummi si. Mhm. Doro suma goro barki alxuraan da see jàpp nekkul woon Sénégal mais dafa woo nit boole maag moom jàpp ci. comprendre nga muy nit ku baax nit ku yàgga a sonn ci man. combat bi am naa si jàppale bu ma musta am ci làmb. am naa ci taxawaay bu mu musta am ci làmb. am naa ci staff boo xam ne musuma koo am ci làmb. nit ñi taxawu nañ ma fi ñu ma war a taxawu yëpp barki alxuraan bis bii dara manqué wu ma si dara. mais sox dafa mel da nga teeloon que combat bi ñu koy dox da ngeen ma soxla. du ma bëre combat bi xanaa da nga sentiroon ne combat bi réussite la jógee parcelle nii la ñuy jógee mobilisation yaakaaroon da nga yaakaaroon ne loolu ci am la. waaw mais la Lamine làmb dafa commencé yàqu rek mais loolu man bi ma koy wax yéen ñii sax jàppoon ngeen ne dama koy wax pour bañ a bëre Franc bari na si ñu bari ñoo xam ne nga wax ne da ngeen waaw ñu bari na si ma koy wax nit ñi dañoo jàppoon ni xëy na Sokh daa am lu muy xel ñaar ci Franc moo tax mu naan du ma bëre kase bi du ma bëre kase bi dem na ba Baye Balla mii woo na ma ni ma buñ la fayee cent franc jëlal jëlal franc ngeen bëre parce que yéen ñaara fi nekk da ngeen a a bëre ay xale ngeen mhm. ma ne ko laaj ko lu ma ko tontu ma ne ko Baye Balla mu ne ma ma ne ko maag franc dañuy tëj arène nationale kii jël na ma ma ko yow jël nga ma ko ma wax ko ah. te boobu doxaguñ ko mhm. man la dañuy tëj arène nationale fi ma ko tegoon mooy franc champion la soq champion la mhm. mu dëkk ci goxu lamb ma dëkk ci goxu làmb ñu toll nag ci moment boo xam ne dañoo war a bëree daje runkum comme fi Modou Lo Balla Gaye tolloon fi Eumeu Sène Balla Gaye tolloon fi Ama Baldé Malick Niang tolloon fi boo Niang Sa Thiès tolloon maag Franc dañ fa tolloon man ma tëdd def analyse xam ni ku ma bëreel ku dul Franc safewul bu ma neexoon bëre ku ma neex mais dama toog étudier xam ni tey Franc mii moo fi nekk adversaire boo xam ne moom ngay bëreel mu nekk lamb capital ma pare pour bëreek moom te boo ma ko jëlee def naa ci fulla def ci fayda def ci jom wane ci bëgg ba keroog may ñàkk bis bi. mais sant naa yàlla bu baax. rëccu ma dara lu ma doon bëreeg Franc. mais est-ce que du est-ce que du keroog pression nga bëree ci biir stade bi. parce que keroog li la gunge la jóge Pikine keroog musul mbër mësta biri bëre biir Pikine lu tol noonu topp ko mobilisation boobu noonu est-ce que du pression boobu nga bëri waale. Mm-hmm. non non non maa ngi dégg nag ñu bari di ko wax maa ngi dégg ñu bari naan sook attanul bis bi xëy na pression bee di si kawam xëy na nangam man man lu ma am ci live mérité naa ko te du ma xale bu ndaw si làmb ndax bëri naa ay combat yu bari mosoo leen ñëw sama làmb mu géey mosumaa bëri stade buñ tëjul musta am ci sama carrière kon tëj arène nationale jomb ma te bu ma fa bëri waatoon suba dama koy tëj man dama am lu ma dund ak nit ñi lu bokkul ak làmb man damaa xam jël nit jox cër man damaa xam fréquenté nit jox ko li mu moom man kenn xamuma ci violence kenn xamuma ci wax lu ñaaw kenn xamuma ci dugg ci lu ma warta dugg man foo ma fekk damay kaf damay ree damay mbalak koñ boo dem am naa fa mafia kon man bu may bëree koñ yooyu yëpp bu seen mafia génnee daje arène nationale xaju fa mm-hmm. du ay làmb man defaguma ci làmb lu war a tax may tëj arène nationale mais c'est que nit ñi jàmm moo gën a wóor nekk mbërum làmb mbërum làmb laa mais duma ma en cent pour cent mbërum làmb mm-hmm. li tax ma naan duma ma cent pour cent mbërum làmb mooy man li gars yi di daw du ma ko daw man duma ma daw nit ndax nit mënut a gën a foor nit nit mënut a ëpp cër nit parfois mbër nit da lay jub si sax nga koy daw. Mm-hmm. comprendre nga te amul solo. keroog làmb ja damay gis sax nga déborder kenn daw baare la ma ni ko hee puusal mu ñëw. bàyyi bala damaa mën a yàqal tàmb cumbukaay ñu dàq ma. gars yi mbëri ñoo mbëri ñoo war a bàyyi esprit mm-hmm. boobu. Mm-hmm. problème yi am ci làmb yëpp lii moo ko indi. da ngay gis ku toog ci rukku bee naan benn lamine bu mu la jege. lamine dénk nañ ko benn buteel lamine butéel bi ñu koy dénk ban sens la ko amal. ban njëriñ. Ah. nañ xam ne ñii seen liggéey la ñuy def seen métier lañ yor. gis nañ ci problème yu nekk ay Modou Mbaye ak ay ku nekk ñuy toog di la jiñ ay affaire te dara indiw ko lu dul ñun mbëri parce que tey man bu ma toogee ni sama entourage bu ma la Baye Balla jege Baye Balla moom bu ñëwee bu ma bëggee jege dañ koy ray parce que làmb la am na ñoo xam ne buñ toppee sa ginnaaw jaral nga leen seen bakkan tey bu nit ñëwee mu leer leen ni kii da koy yàqal mun nañ ko ray te loolu ñun mbëri ñoo war a suñu jikko changer suñu doxalin parce que tey maa ngi nii nekkuma ci làmb yéen ak ma ñooxu tiimale ma seeni caméra léegi bu fekkente ne làmb la ma leen di daw pour lan xam nga dañoo war a xool lépp luy yàq ñu koy dindi di teg fële man ñàkk ndam ak am ndam laa yemale. jaam dongu laa bu xeebu nekku nekkuma nag ci làmb pour ay daan ay daanu taalibi suñ Tuubaa doomu gor laa comprendre nga bugguma luy yàq bugguma luy yàq dara bugguma luy indi problème bugguma luy def dara bis bi comprendre bis la woon boo xam ne mënta woon ñàkk bëre nañ ko.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

lépp lu li nga xam ne moo gën ci bis bi rek yàlla na leen ko yàlla defar non waxuma que le maire gañ ndax vainqueur bi bare nga pour bëre ak moom laa. non non non non parewuma parewuma pour bëre ak vainqueur beeg vaincu bi yëpp parewuma pour bëre ak moom. Garga 2. bërewuma ak Garga 2. Mama sama xarit la. aw ma ci tànk ginnaaw kooku suma xarit la. ko ba daanaka sotti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 mu nekk xale nekk ci yoonam Coly Faye tamit champion la boo xoolee bu jugee caaroy géej jàmm gën si kaab mbaaw kenn du des mm. te tarkindaa la bokk na ci mafia boo xam ne tamit ñoom it ñu ngeeg seen mafia mm. lamb boo xam ni ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ mm. yàlla na yàlla def jàmm ba dimanche ki ci ndam li jik suñu borom dogal ko pour mu yóbbu ko mu yóbbu ko mais nañ xam ne tamit ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ki daanak ak ki daanu yëpp amuñ ci luñ ciy perte maa ngi leen di ñaanal yàlla dogal mu doon journée bu neex journée boo xam ni mooy loolu noonu. waaw kontaan nañ ci jaajëf Lamine ana Moussa Niass. Moussa mu ngi fi. waaw Moussa Moussa Niass Lamine Lamine Lamine yaa ngi tudd ku baax. Moussa Niass escape. voilà Saliou Gueye. voilà da nga wax lu am solo sax. ay doomu ndoy sokk rek. waaw waaw billaahi di profito. nag 72 incha allah dinaa ñëw di profito nag xam nga. di bëggee suma mafia bi yëpp. barke alxuraan karim ndax yàlla daf ma dénk mafia boo xam ni amuñu kattan yoruñu dara ay xale lañ kom man mais na nit ñëpp jàpp ni man gëw ma ku dul ñoom mafia boobu noonu ñoom laa gëm wax ji nag bari na ndax man ñii laa doon àndal di wuti ndam suñu borom di ma ko dénk ah. nit ñi nañ bàyyi bu nit ànd ay nit ñàkk ndam ñu ne fa naan ay booy yi muy àndal ak kii yee ko jegeek kii waru ko woon xëpp butéel ak kii waru ko woon def lii gis nga nit da ngay gëm yàlla ba pare wóolu ko man li may wax chaque jour nañ ma bàyyi ma ànd ak xale yu ndaw yi ñoom laa xam ba ma kenn gëmulee ñoom ñoo ma gëm di ànd ak man tey lu ma doon ci làmb ñoo ma gungee ma doon ko kenn musumaa gis ma ànd ak kenn ku dul ñoom comprendre nga di ci profité nag di ci gërëm sama nijaay jibi joolaa maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax yàqu ci dara yàqu ci dara képp ku ma bëgg mu sentir ni da nga maa bëgg sax dalay roof ci staff bi ku fi ñëw tey ak ku fi ñëw démb la yemale di profité di gërëm Nicolas bu baax suma xarit la suma gaan la ku sonn ci man di gërëm suma grand Ibou si di ba gërëm ay ñoom jibi sànke di gërëm nag su may goro yëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a eh, baax di gërëm suma yaay di gërëm suma famille ah, suma maa ngi leen di gërëm bu baax a baax su may mag ñëpp ñoom faatu ñoom jetli comprendre nga su may raq ñoom asu ñoom awa kenn du soq bu ndaw su ma raq soq bu ndaw boobu laa fàtte waaw ku sonn ci man bi jeexagul de moo moo petit loola le waaw ñaari xale lañu dégg naa sax Modou Lo démb xaw ma mu mu mu mu am yum ci wax Modou Lo moom na xam ne moom champion la te communication dafa am solo mu ngi taxaw di xam bu booy yooyu ñooñu ay xale lañ Petit Lo suma raq la soq bu ndaw suma raq la te ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ defaguñ ci làmb lu tax ñu war a jël ay soq di ko dugal ci seen diggante ndax mu naan ay derby bi jeexagul ak ni kii def kii noonu lañ leen di def affaire yooyu noonu ñaar ñooñu ay xale lañ ñoom ñaar ñëpp ci làmb xale lañ toll soq bu ndaw daan Petit Lo yàqul ci làmbam dara Petit Lo daan soq bu ndaw yàqul ci làmbam dara te man ñoom ñaar ñëpp sumay raq lañ maa ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm may ñaanal nag suma raq yàlla defal ko ndam loolu rek laa mën ñaanal ko ndam mais terewul Petit Lo tamit champion la xale la mais ñoom la comme soo ko Franc nekkee dër yàlla may Franc ndam yooyu yëpp dañ koy nangu mais ñooñu ay xale lañ buñ teel a def loolu seen bopp